waaye Pape Abbas Diagne nee na bu ñëwee. mu ngi Abbas. nga xam ne lépp dëgg la. loolu dama koy fekkee. kon Pape Diagne non lii. maa ngi si. yàlla na ràpp nga ràppoon ko. ci barke Alxuraan. et eh, ku ma tàcc nii. Sëriñ Mbacke boo xam ne loxo bàyyi leen ko. ndax maa ko dugg. lii dalee def. ak Lamine Ngom. barke Sëriñ Saliou di mën a bële. dëgg la du ma de lii. xam ko wala ma dem xam ko dene Fall yàlla na sa jàmm yàgg alaaji Lamine boobu yàlla oto dinañ koy séddu da ngay jël benn ma jël benn su ma jox Souleymane ma jox Mamane su beneen ah ma jox Baye Demba xool leen lii wari xool leen lii ndeysaan téeméer jooy sama xol dafa dafa dafa ndaw de jërëjëf jërëjëf bay dem waaw mention spéciale ñu def indi Pape Boy Diallo doomu yaay Doudou Mbodj Sénégal bi yaa entertainment lii lépp suñu amee exemple la ndax Pape yow Gambia dañ fee bokk tey ci suba dañoo dem xool yi xale yi SOS yi Binta Ndaw tey ñëpp tuur longo yi Aziz wi daal xam nga Abbas moom dañ koy ñaanal ndax moom daf ñoo dalal àdduna yëpp di ko mook soxna ci leen yàlla la yàlla saxal waaye ñettu tàmbi diw dama naan heure bu ñu amee contrat moom jëkkëram dama leen di yërëm fii ci gàmm bokku day am sise barki li ma ci gën a neex mooy wax ji du bari xar yi ñu boo am fii rek da ko jigéen ju baax du sëy yow sa baay moo yor baas da nga bokk ci famille bu baax man yow laa internet Dakar Buzz TV ba tey ñu ngi wéyal ak yéen ci soirée bi nga xam ne Pape Diouf moo koy tëgg fii ci biir Gambie waxoon nañu leen ko gis nañ ko léegi nag ñu may ko ñaari caabi oto yoo xam ne oto yaa ngi fii ne bii nag Mercedes waaye dañuy woo Buur Géwal nga xam ne nag jege na lool Pape Diouf ngi rek mu daal di ñëw wax ñu buur ay ca jege si ma. nu nuyu naa la ziar la di la masawu coono ci soirée bi ñu ngi lay gis boobu te yaa ngi jaabante nga yo loo loo sa loxo nii waaw gis nga caabi oto yi dañu pare rek Pape jox ma ko na am téyel waaw Néné Fall gis nañ ko fan yëpp wax dëgg fa yàlla mi ngi dugg génn dugg génn amul jot mais xamuñu ñoon surprise bii la koy defar vraiment muy lu rëy nag ah ah vraiment bu teralee Pape ah jaar na fa mu daan jaar du ne bu leet ndax bokk na ci ñi ko njëkk a may fii oto kon tey bu ko dollee ñun dañuy ànd dafa dolliwaat waaw dafa dolliwaat vraiment way bi rëy loolu ci moom vraiment mu marqué ko xam nga Pape wayoon ko ci maalaw euh, rëkkante ne nag boobu lépp dafa am lu mu guux Pape tollanti ko mu daal def lii. waaw lii daal la def. waaw mi ngi nii lii daal la def daal. lii daal <laughs> Omar oh, kon nga jël Mercedes bi bu ñu paree ci Mercedes bi daal dem xool ndànk ah, leneen li nga xam ne moom mooy range bi moom daal mu mel ni kon seen ah, nu ñu ko waxee seen soirée daal moom macha allah. <laughs> waaw bi moom ah vraiment macha allah neex na trop vraiment ah, am nañu mbégte lool nag ah. Uh-huh. waaw xaaral ma tijjil ko bu la neexee it nga tijji xool. <laughs> xam ne euh, range baa ngi nii range baa ngi nii range bi lañ ko jox. waaw gis nga bu la neex gis nga bu la neex defal lii bi nag bi nag Lamine Ngom. bii nag Lamine ngoom moo ko teralee lii ku ne Lamine ngoom ne ci ngoom di doomu ndeyam di léppam di xaritam wax dëgg fa yàlla moom it Lamine Pape bokk na ci mu njëkk xam fii ci Gambia Lamine Ngom moo tax Pape xam ne ne Fall. depuis 95 moo ko présenté gis nga tey jii moom it Lamine euh, way wu lool ci moom mu teralee ko range bi en tout cas daal euh, xaw ma ban gambi waaye gambi gii moom ah gars yi waa Sénégal ñoo ko gisandoo gambi gi fees na neex na am na ambiance Pape nag man gëm naa ne ba tey xolu gambien yi des nga seen biir xolan ah, wax dëgg fa yàlla ren si ngoog <laughs>